سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل بكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيلن دي نيو دين زيارة دين بال حق تي دين بال دي نيان سونو بروم سبحانه وتعالى مو بول ني بال ا دي كونتينيك يين تي وقتان ييغا خامني نينغ كولون ديف ci weeru safar te mooy aju ci sëriñ bi ak njàngale ak njàngalem sëriñ bi tey nag ñuy indi xikmatu Cheikhul Xadim sunu borom subhaanahu wa taala dafa wax ci alquran ne wa man yu'tal xikmata faqad uutiya xayran kathira képp koo xam ne jox nañ ko xikma kooku na jàpp ne jox nañ ko yiw wu réeréeréeréeré képp koo xam ne jox nañ ko xikma jàppal ne kooku jox nañ ko yiw wu réeréeré yiw wu bëree bëree bëree bëri sëriñ bi nag bu dee ci wàllu xikma moom it ku ci rawoon la ku ci demoon dayo la tey nag ñuy waxtaane ci xikmatu cheikh boobu muy ndénkaan yi nga xam ne daana ko def te muy ndénkaan yoo xam ne yu am solo la te ñu dajale ko tudde ko xikmatu cheikh ahmadu bamba la ca nekk ci ay ndénkaan yoo xam ne sëriñ bi def na ko mu jëm ci taalibe yi ay leetar yu mu daan tontak ay nit yu mu daan laabiire euh, bëri na lool waaye dañ cay jikki dañ cay jukki maanaam yennat ya rek bu ko defee mu doy walis yeneen ya ndénkaan bi ñuy njëkk a indi sëriñ bi daf caa wax ne euh, gannaaw ba mu tàmbalee ci turu yàlla wax bismillahi rahmaani rahim delloo nuyoo ne waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu ndax nee naa la lii li ci ëpp ay laaj la yoo xam ne mbokki taalibe yi ñoo ko daan laaj walla daan sàkku ci moom laabiire walla yu deme noonu mu bind ca kon mooy tax ngay gis yenn saa mu def wa aleykum salaam maanaam kon day delloo nuyoo dañ cay dégg kon dafa am ku ko nuyu mu wax ne am murit saadix bu dee dafa bëgg a jariñu bu dee dafa bëgg a làq njariñ day jàpp ne sëriñam bii nga xam ne ci la jébbalu mooy escalier bi nga xam ne moo dox diggante moog yàlla yàlla dafa mel ne daal dafa nekk ci kaw moom mii mu nekk ci suuf ah sëriñ bi mooy nekk escalier bi nga xam ne ci la war a jaar ba yegg ci kaw kon loolu la war a jàpp bu dee bëgg naa jariñu bu ko defee nag lu mu ko digal mu def ko lu ko tere it mu bàyyi ko moom sëriñ boobu te it mu am yaqiin lu wóolu ne sëriñam bi du ko digal dara di ko teg ci bànneexu bakkanam lépp lu ko digal ndigalal yàlla la subhanahu wa du ko tere dara it te di ko teg ci bànneexu bakkanam lépp lu ko tere tereb sunu borom subhanahu wa taala la nee képp koo xam ne lii mooy sa pas-pas képp ko xamne li moy sa pass pas-pas nga làq ay njariñ adina ak alaxira euh, mu ne bepp serign bo xamne da ngay digle wala ngay tere té la ngay diglé ka tere du ndigalal yalla du bi yalla du bi yonenté bi du ndigalal yonenté bi da ngay digle rek ngir sa neex sa bakkan tek ko ci sa tek bakkan wala ngay tere te teg ko ci sa téeg bakkan xëy na sëriñ bu bépp sëriñ buy def loolu ku réer la te it kuy réeral la ci loolu la waxe woon ne wa wajabat taatu man yaqfur rasul salla alayhi man bihi yaxbu bisul min ru'asaai diini dil kamaali man laa yura minhum siwal yi nee na dafay war nga topp ki nga xam ne day xeentu yoonu yonent bi sallallahu alayhi wa ci kilifay diine yi ñi nga xam ne diine ji nga xam ne diine ku mat la muy sunu borom subhanahu wa taala ñi nga xam ne dañoo nekk ca yoon wa ku ku leen fekk ca yoon wa ñu teg la ca yoon wa waaye képp ku nekkul ca yoon wa kooku kenn waru ko topp ndax boo ko toppee moom dafa réer te daf lay réeral kon loolu la sëriñ bi wax ci ndénkaan boobu ndénkaan bi ci topp sëriñ bi ne maa ngi leen di dénk juróom benn baat juróom benn baat yooyu juróom benn téeméeri njariñ mi ngi ci nga xam ne ko daal baat bu ne ci téeméeri njariñ ma ngi ci mu ne ida staxala annaasu bil xalqi fastaxil anta bil xaaliq nit ñi bu dee dañoo jóg xëntewoo di wut àddina Euh, di wut mbindeef yi yow nanga soxlawoo xante am sa borom nee na kon maanaam nit ñi bu dee dañuy wut mm, seeni moroomi nit topp seen gannaaw di leen tërbiyewu guddi guddi ak bëccëg ngir am lañ yor nee na yow na nga fa nit ñi te tërbiyewu sa borom subhaanahu wa taala na nga soxlawoo sa borom loolu mooy euh, baat bu njëkk bi bu ñaareel bi mu ne bu dee nit ñi dañoo soxlawoo xam-xam yow nanga nga soxlawoo jëfe xam-xam bu ñetteel bi mu ne nit ñi bu dee dañoo soxlawoo zahir muy liy feeñ ci kaw yow nanga nga soxlawoo baatin muy mbirum baatin la biir ba ca topp mu ne bu nit ñi dañoo soxlawoo àddina yow na nga soxlawoo dundal sa alaaxira bu ca topp mu ne nit ñi bu dee dañoo soxlawoo ay ay ay kumpa dénga di liñ bët kumpa yi maanaam li wumpe rek xaybu nee na yow na nga xam sa sa sa ayi bi bopp sa ayi bopp nee nanga na nga soxla woo ba ci topp mu ne nangay ngay sa boroom na ngay sa boroom te na ngay roy ca gaa yi nga xam ne euh, ñooy ñu baax ña waaye bul euh, wëlbatiku mukk di jëm ci nit ñi loolu mooy juróom-benn baat yi nga xam ne sëriñ bi nee na ñu ëpp wala toll nañ ne wala am nay njariñ ñu toll ne juróom-benn téeméeri njariñ nit ñi bu dee dañoo soxla woo seen moroomi nit ñi yow na nga soxla woo yàlla nit ñi bu dee dañoo soxla woo xam na nga soxla woo jëfe xam-xam ñi bu dee dañoo soxla woo zahir yow na nga soxla woo xam baatin bu dee nit ñi dañoo soxlawoo woo addina yow na nga soxla woo sa dunduk laaxira nit ñi bu dee dañoo soxla woo xami kumpa yow na nga soxla woo xam sa ayibi bopp mu ne nag na ngay wéttalikoo yàlla di roy ca gaa yu baax ya te bul geestu nit ñi bul geestu li ci loxoy nit ñi sëriñ bi continue ne ndénkaan bi ci topp mu ne ah dana yell ci ab jullit ñeenti baat ba ñeenti baat yooyu mooy daaba joo xam ne daaba ju ñaw la ju ju ju ju gaaw waaye kër goo xam ne kër gu yaatu la waaye làmp boo xam ne làmp bu leer la nee na ñeent yooyu dana yell ci jullit mu am ko daaba ji mooy am xel kër gi mooy kër gu yaatu googu mu wax nee na mooy ak muñ dégg nga yére yu set yi nee na mooy kersa làmp bi leeral nee na mooy xam-xam nee ñeent yooyu dana yell ci ab jullit lu yell ci ab jullit la mooy amum xel te mën a muñ am kersa te amu xam-xam sëriñ bi dellu wax ne saa yoo gisee ku baax nanga ko sopp te jege ko saa yoo gisee ku baax nanga ko sopp te jege ko nee na saa yoo gisee koo xam ne ab kàccoor la bul ko sopp te bul sàkku mukk di jéema taqoog moom di jéema ànd ak moom saa yoo nekkee ci lu baax na nga ca sax saa yoo nekkee ci lu baax nanga ca sax képp koo gis it mu génn ci lu baax dem ci ak mbon nee na na ko daw loo man saa yoo gisee ab yéefar bul jàpp ne moom mën na mën na laa lor ci dara dara dara dara dara dara te neena na it na ngay sa njort ci sa boroom na ngay rafetal sa njort ci sa boroom bul ñaaw njort mukk mukk ci sa boroom ndax nee na bu dee ne da njort ne sunu boroom subhaanahu wa taala mën na lépp lu ne am na kàttan ci def lépp sunu borom dana la wonne, ne ah moom kat ndegete li nga njort ci moom mooy li am ndegete man na lépp waaye bu dee da nga njort ne sunu borom mënu dara nangam ji kat sunu borom mënu ko sunu borom dana la mon kàttanam ca loolee nga jàpp ne mënu ko te nee mbir yépp noonu la demee sunu borom saa yoo ko wonee ne sunu man nga lépp mu won ne la moom man na lépp sëriñ bi continuer wax ne doom ñaari doom la dafa am lu ñu wax doomi xol ak lu ñuy wax doomi ndigg doomi xol nee na mooy mooy mooy dondu melaw nit ki doomi ndigg nag mooy dollu alalam nit ki mën naa am doom joo xam ne juru ko nga xam ne mën na nekk sab donga la nekk ci lépp mu nekk ca moom nga xamal ko la nga xamoon yar ko bal boo fi jógee mu mën laa wuutu ci jëmm ak ci lépp kooku doomi xol la ak doon tene juróo ko doomi ndigg nag mooy doom ji nga jur rek doon tene moom la nekk ca moom nekkul ci yow la nekk ca yow nekkul ci moom kooku mooy doon rek sa alal sëriñ bi wax ne muñ dañ koo xaaj ñetti xaaj muñ ci jaamu yàlla yi ci jaamu yàlla yi mooy jaamu yàlla yi ngay def muñ ci bàyyi moñ yi moy yi muñ ci top ndigal bu ñëk bi moy muñ ci jaamu yalla moy sax ci sahti sax ci l'islam sax ci l'islam sax ci l'ihsan sahti luar, sahti waye sax ci lu war sax ci luñu sop sax ci luñu dagan bu ñaarel bi moy muñ ci moy yalla yi dum moyu ba faawu walis yéfer ak kéfer wedd yalla waye ak kàccoor ak bokkaale yàlla ak def lu xaraam ak def luñ sib ak def ay neen bu ñetteel bi mooy euh, topp ndigal li mu ne mooy nga dugg ci néegu jëfe ndigal yi te bu bañ caa génn mukk te bañ a gestu mukk te moytandiku mboolem mooy yàlla yi daw ko sa kem kàttan daw it ñëpp ñoo xam ne dañoo nekk ca mooy yàlla ya euh, nee moom la ñi nga xam ne dañoo dégg naxu di wax naan asabru ala wa sabru an wa sabru fiihi noonu lañ koy tënke sëriñ bi dellu wax ne nee nit ku ne yaa ngeeg ñaar nit ku ne sunu borom subhaanahu wa taala taqali naa ak ñaar am malaaka ak seytaane malaaka ak seytaane nee na malaaka dara dara du yitteem lu may loo def mu bind ko bu dee lu baax mu bind ko bu dee ab safaan mu bind ko seytaane dara dara dara du yitteem lu may yàq say jëf yépp loo def looy def na na maanaam fexe ba doo doo def looy def it mu bañ a nekk lu baax loolu dong mooy yitte seytaane te malaaka moom bind dong mooy yitteem li ngay def lay bind te nee na doomu aadama nag mi ngi nelaw ci diggante ñaar ñoo ñii te sunu borom subhaanahu wa taala nee seytaane seenu noonu la nangeen ko jàppe am noon seytaane seenub noon la na ko jàppe am noon seytaane inna seytaana lakum aduwum fattaxiduhu aduwa nee na sunu borom subhaanahu wa la wax ne ne yéen nit ñi boole naa leeg boole boole naa leen nag ñaar ñoo xam ne ñu wat ñu wattu lañ ñoo xam ne dañuy bind ñoo xam ne ñu tedd lañ lépp lu leen def danañ ko bind wa inna aleykum la xaafizin kiraaman kaatibin nee na donte desutoon ci dund yi lu may benn bis bu doon benn bis dongala nga dese it fa tub ilayhi na nga tuub jëm jëm ci yàlla na nga tuubal yàlla tuub goo xam ne ah tuub gu baax la nee na loolu boo ko defee sunu borom subhanahu wa taala dana yéwénal sa dund ko yëpp yëpp yëpp yëpp nee na benn donte ne benn bis moo la des ci àddina benn bis boobee boo ca tuubalee yàlla tuub gu sell sunu borom nangu ko nee na sa dund ga yëpp la sunu borom di yéwénal dello wax ne digal na mbolem murid yi digal na mbolem murid yi ñu téye seen bakkan andak seenum njaboot andak ak farlu ci farlo ànd ak farlu ci saraxé ànd ak farlu ci ñaan ànd ak farlu ci li ñuy wax julli juroom mooy asalawaatul xams ndax nee li tax bëggal leen loolu digal leen loolu mooy dama leen bëggal ak alaaxira njëriñ loo xam ne du ànd ak benn lor sëriñ bi wax ne képp koo xam ne dafa wéttalikoo nit ñi nit ñi danañ la yiir danañ dox sa digganteeg sa boroom képp koo xam ne danga wéttalikoo yàlla sunu borom dana dana la doyluloo walis nit ñi ku wéttalikoo nit ñi nit ñi dox sa digganteeg sa borom ku wéttalikoo sa boroom sun sa boroom doylu loola walis nit ñi ba doo soxlaal nit ñi sëriñ bi wax ne képp koo xam ne danga ji aw yiw lu baax dangay góob la ngay góob mooy ak ñeewu mooy sa moroom yépp danañ la ñee képp koo xam ne danga góob aw ay kooka na la leer ne la ngay góob du dara lu may sa réccu sëriñ bi wax ne hadiya day ñoddi ab murit jëme ko ci saada muy texe hadiya day ñoddi ab murit jëme ko ci maqaama yu kawe hadiya day bëril alal hadiya day day day guddal aw fan hadiya day day day day tax nit ñi sopp la bëgg la addiya day tax nga raw sag maas ñoo nekkal yaa cay jiitu addiya day tax doo gis malakul mawti maanaam astafurlah doo gis munkar ak nakiir ci bàmmeel addiya day tax nga gaaw booy jéggi siraat addiya day tax nga dugg àjjana te kenn du la xisaab addiya day tax doo gis benn fitna buñ la robee dugal la ci biir bàmmeel addina day tax sax yi duñ la lekk buñ la dugalee ci bàmmeel ak yeneen yu may yooyu neena nekk na ci addiya ay njariñ yu bare bëri yoo xam ne xalima mënee su ko mënu koo bind waaye làmmiñ mënee su mënu koo wax ndaxu bëri waay ndax neena benn hadiya benn hadiya nee na day tolloog euh, fukk ak ñaari junni ci aw yiw benn hadiya benn bi rek benn hadiya yujj saa def na ko fay isnata asara alfan fukk ak ñaari junni te nee na loolu mooy li gën a néew sax lim bi gën a néew dégg nga nee na addiya moo benn moo ëpp loolu lu bëree bëree bëri ci loo xam ne yàlla dong moo xam moom mi nga xam ne mooy buru buur yi kon addiya lu am solo la nee na yéen murid yi maa ngi leen di digal ci ngeen farlu ci tuub gu sell ci ngeen farlu ci jëf ju baax li dale tey jii ba ba weer wi euh, di jeex wala ci weer wi xaaj ndax lu wax nañ ne loolu bi mu koy wax dafa nekkoon nisfu saaban mooy fukki fan ak juróom ci baraxlu waaw fukki fan juróom ci baraxlu li anna tilka layla min nisfi saaban nekkoon fukki fan ak juróom ci baraxlu ndax nee ci bis boobu lañuy yëkkati jëfi at mi yóbbu ko ca yàlla nee na képp koo xam ne farlu nga te nga soxlawoo lii ma wax mooy def lu baax di tuub di jëf aw yiw nee na kooku kon duñ ko yëkkati lu may aw yiw lu baax rek lañ koy yubbal lañ koy yubbul ca yàlla dañ koy yubbul ca yàlla ndax nee na bis boobu ci lañuy yubbu ah euh, jëf yi ca yàlla te nee na suñu borom subhanahu wa taala mooy lëñbët mbir yëpp mooy lëñbët mbir yépp ndax alquran nee na fiha yufraqu kullu amrin hakim amram min indina kon nee na diir bi yëpp nangeen ci farlu ci seen kem kàttan ci def lépp loo xam ne lépp lu baax la nangeen ko na ngeen ca farlu sëriñ bi continuer wax ne euh, wa qaala alcheikh al akbar anna al amra isnaani nee mbir ñaari mbir rek ñoo am ñaari ndigal rek ñoo am ndigal loo xam ne ndigalal bakkan la ak ndigal loo xam ne ndigalal yàlla la ndigalal bakkan neena ak njëlbeenam day neex waaye ak mujjam day naqari ndax alquran moo ne inna nafsa la ammaaratun bis suu bakkan ndigalam ah ak njëlbeenam day neex waaye ak mujjam day naqari ndigalal yàlla nag ak njëlbeenam day naqari waaye ak mujjam day neex ndax sunu borom subhanahu wa taala moo ne inna allaha yamuru bil adli nee na ndigalal bakkan nag sunu borom moo fa huwa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum man na am ngeen bëgg dara te lee na fekk nag loolee ngeen bëgg seenu ay la yenn saa nga bëgg dara di ca dox di ca daw waaye fekk na loolee ngay dox ak daw di ko bëgg saw ay dong la bis boo ko amee it doo ko sëriñ bi wax ne lépp loo xam ne day rot ci xelum doomu aadama manes na ko xaaj ci ñetti xaaj lépp luy lot lot lépp luy rot xelum doomu aadama mënees na ko xaj ñet xaj mu ne yitte yitte bu de daf bu de yitte ji yi dafa ñeel yalla rek wala yitte ci yalla neena na jeexi dalam moy ay secret da nga am ay secret yo xamni sunu borom subhanahu wa taala mo la koy jox bu de da nga yitte wo yalla bu de yitte ji dafa nek nak yitte al-akhirah na koku ak mujjam ay leer la yo xamni da nga ko am bu de yitte ji nak dafa nek yitte àdduna rek nee na kooku moom jeexitalam du dara lu may ay lëndam ak i nax-nax nee bépp ànd boo xam ne yàlla rekk tax ak mujjam mooy santante ne alhamdulillahi bépp ànd boo xam ne yàlla taxut ak mujjam ah mooy inna lillahi wa inna ilayhi rajiun euh, nee na képp koo xam ne dafa jege ndigal texe te it euh, ku texe danga dem àjjana képp koo xam ne dafa teet aw ay tere mooy li suñ borom subhaanahu wa taala di tere kooku danga mucc ci sawara neena cant daf lay dolli cant daf lay dolli lépp loo xam ne dalay tàbbal àjjana rek cant daf la koy dolle neena na tuub it day far lepp lo xamne daf lay duggal sawara yubaddilu llahu sayyi'aatihim hasanat mu sun borom subhanahu wa taala dana soppi seeni ñaawteef defal leen ko ay refet innal abraara la fi naim lam yartaddu neena na yu bax yi ña nga ca yi naim àjjanay xéewal li feeg murtaduñ genn ci lañ nekkon kàccoore it wa innal fujjaara la fi jahim malam yi tuuboo kàccoore it ña nga ca sawaraw jaxiim li fee tuubuñu nee na képp jublu kudu yàlla jublu kanen kudu yàlla nee sunu borom subhaanahu wa taala day jël wépp lor jëmale ko jëmale la ko yow lor rek ngay tassel mune wallahi wala yaasu billah loolu yal nañ ci sunu borom musal sëriñ bi wax ne barke bu duggee ci dara lu néew daf koy bëril barke bu duggee ci dara loo xam ne lu néew la daf koy bëril gën koo bëril nee na barke bu jógee ci loo xam ne lu bari la maanaam bu dee dafa am dafa am lu baree bari barke nekk ca ñu génnee ko daf koy néewal daf koy néewal kon barke bu duggee ci ni ci lu néew daf koy bari bu génnee ci lu bari it daf koy néewal nee na ay teggin bu duggee ci lu bon daf koy rafetal teggin it buñ ko buñ ko génnee ci lu rafet mu ñaawal ko mu bonal ko nee na barke néeg la te nee na teggin mooy bunt ba te gis nga lim la wax ci barke ak lim la wax ci teggin ndax nee na barke lu dugg bu fekkee mu néew dana ko bari lum genn bu fekke mu bëri it dana ko neewal teggin bu duggé ci lu bon ci lu ñaaw dana ko rafetal bu génnee ci lu rafet it dana ko ñaawal té néna la barke moy néeg bi buntu ba ngay jaaré pour dugg ci néeg ba moy teggin nee la ci néeg ba kenn mënu ca yegg lu dul ne da nga jaar ci buntu ba té néna buntu ba mom moy teggin ndax alquran néna wa tul bu min abwabiha na ngeen dugg ci kër yi wala néeg yi te jaare ko ca bunt ba sëriñ bi wax ne laajkat yi ñaar lañ laajkat yi ñaar lañ ñiy laaj ñaar lañ nee na ki nga xam ne dafay laaj alal ngir dimbali kooko ci topp ak ki nga xam ne dafay laaj alal ngir dimbali kooko ci mooy yàlla nee na ki nga xam ne dafay laaj alal ngir dimbali ko ci topp yàlla nee kooku nanga ko ko jox ndax loolu dafay dafa lay dimbali yow mi ko jox ci topp yàlla nee na ki nga xam ne dafay laaj alal ngir mooy ko yàlla ah nee na it kooku it nanga ko ko jox ndax loolu mooy dox sa diggante sa diggante ak diggante sawara bi nga xam ne la koy xambu sawara bi nga xam ne la koy xambu mooy nit ñi ak doj nee na loolu it yàlla nañ ci yàlla musal kon képp ku la laaj rek nanga ko jox te yàlla rek tax ka nga xamne daf ko def ci yoonu yalla topé ko yalla loolu dana la dimbali yow mi ko jox ci top yalla ka nga xam dang nga ko jox ba pare mu dem moy ko yalla nak koku mom lolé nga ko jox dana dox sa digënté sawara yow mi ko jox sawara wo yi nga xamne alquran neena na lay nek mat ma koy xam bu moy nit ñi ak doji neena lolu na nañ ko lay nañ ci yalla musal sëriñ bi dellu wax ne nit ñi kat buñ xamoon lii nekk fi ñun danañ gaaw daw ñëw sàkku si ko waaye nag <coughs> waaye nag réer réere guñ ko réere moo tax ñu dem sàkku ji laneen lu bokkut ak loolu mu wax ne moom sëriñ bi bëccëg gi leer na naññ set wecc kon bul ko tilimal bul ko naxal ci ay bàkkaar nee na guddi gi it gudd na lool maanaam guddi guddi dafa yàgg lool kon bul ko gàttal ci ay nelaw maanaa kon li mu la bëgg a wax rek mooy bëccëg gi dafa set wicc leer nañ kon bul ci defi bàkkaar kon boo ci defee bàkkaar day mel na léegi yow da ko lëndëmal da nga ko naxal guddi gi it maanaam guddi dafa yàgg kon bul ci bul ko gàttalee ki nelaw mooy nelaw boo guddi gi yëpp boo ko nelawee day mel ne dafa gàtt fekk na lu yàgg-yàgg la hmm. sëriñ bi wax ne melay murit saadex ñeent la mu dëggal ci sopp gi mu sopp sëriñ bi di jëfe ay ndigalam bàyyi di gaaralaka diingat waaye bàyyi it ixtiyaar muy tànn kon nanga nga sëriñ bi lum wax na la doy na ngay jëfe ndigalam te it nga dëggu ca sopp ga nga ko sopp nee ñeent yooyu ñooy meloy murit saadix sëriñ bi wax ne <clears throat> jàmm ak xaafiyakat àddina ak alaxira ñi ngi juddoo ci yéene aw yiw ak wax ak yiw ak def aw yiw ak taxoog aw yiw <coughs> nee <coughs> nee na ñu jéggalu nee na jàmmi àddina ak alaxira ñu ngi jóge ci ñoo ngi jóge ci wax aw yiw ak def aw yiw ak yéene aw yiw ak taqoo ak yiw nee na loolu sax dajale woon naa ko ci aw bayit ne an wi waxul wafxal walazim taslam yi mukarraman rumil ula bi kalimi dafa wax ne na ngay yene aw yiw di wax aw yiw di def aw yiw di taqoog aw yiw neena lol boko defé da nga muccu da nga nek ku ñu teral ku tedd sëriñ bi wax na ak ñi nga xamne ño aju ci mom nekat budu won ak aju gi ngeen aju ci man da ngeen tàbbi sawara gannaaw bu leen faatoo donte ne ab diir ngeen fay def njëkk ngeen ni tabi tàbbi sawara maanaa dafa wax ne ñi aju ci moom bu ñu ajuwut woon ci moom danañ tàbbi sawara donte ne dañ fay defub diir ñu génne leen doog leen a tàbbal àjjana te nee na sama sababus sababus sama fàddu gi ma fàdd woon mooy dem ci géej gi ñu di ñu di ko ñu di ko al ghaibatu moy fàddu ci wolof de nga moy génne googu ñu ko génne woon te muy ghaiba ghaibatu gu barkel moy fàddu gogi gu barkel la néna lolu kat suñu borom subhanahu wa taala moko namon ci azal waaw néna lolu suñu borom moko namon ci azal moko bëggoon waaw mo bëggoon ca azal ne ah man kat dama war a ramm mboolem ñi nga xam ne ñoo aju ci man loolu sun borom moo ko defoon ci azal laata dara di am eh, nee na it sunu borom subhanahu wa taala moo dox sama diggante ak nasaraan yi tàbbal ci seen xol ya ñu ragal ma ñu def lañu def ah ngir ma baña am ngir ma baña gagner ya, dal wa euh kon ñu def lañu def ngir ma nasaranu te buma nasaranu won tabbi tabbi sawara te sunu borom subhanahu wa taala nak momu musal ci tabbi sawara momu musal ci lepp lo xamne ne ko mom sunu borom subhanahu wa taala ci lol la waxe won ne képp koo xam ne bëggu ma képp koo xam ne bëggut ma man sëriñ bi kooku ak texee dem sunu borom subhanahu wa taala bind na ko ca lawxul mahfuz te du ko far shaqaa'u man lam yahwani qad kutiba fi lawxika alladi yufidu kutuba nee na yow sunu borom subhanahu wa taala yaa bind ca sa àlloo jane képp koo xam ne bëggut ma man sëriñ bi kooku ak texee dem sunu borom subhanahu wa taala bind na ko mu waxaat ne yanqaadu li niiraani man lam yaxwa nii muxalladan aw muxallidan fii hinna daa talawu ne nee na képp koo xam ne bëggut ma sunu borom subhaanahu wa taala wamman na ko jëme ko ca sawara te dafay sax maanaam day sax ca sawara wa du nekk koo xam ne dañ ko dugal sawara ga génne waaye dafay dugg te dafay sax nekk fa nag di ame melo wu ne waaye ca sawara wa lay sax kon nee na loolu sunu borom subhanahu wa taala moo ak o defal sëriñ bi wax ni yéen murid yi na ngeen xam ne kat sàgganuma wuma leen tarfata ayn waaw lu toll ne xefinu bët dal sàgganuma ko ci seeni mbir te it bayuma seeni mbir waaye nag dama nekkoon occupé lu ñuy wax soxlawoo ci loo xam seeni mbir mënta yéwén lu de may loola dafa yéwén te maa ngi leen di bégal ci ne loolee nga xam ne moo ma soxlaa la woon te seeni mbir mënta yéwén lu may loolee dafa yéwén na leen leer na maa ngi leen di bégal ci ne loola kat noppi naa ca kon la lay sama yitte rek fi mu toll nii mooy ah soxla woo seeni mbir yéen ñëpp sëriñ bi continuer wax ne xikma dafa mel ne ab taw day jóge asamaan jëm ci suuf si ab suufam nag xikma dafa mel ne sa dafa mel ne ab taw maanaa suuf sami dal mooy ab xol te nee na xolub ku texe dafa mel ne donj suuf xolub ki nga xam ne dafa texe di mi ngi mel ne aw doj xam nga donj suuf moom ndoxum taw ma nga xam ne mooy ma bu ñëwee dana mën a ca dana ca mën a dugg waaye nag ndoxum taw ma nga xam ne mooy ma bu dalee ci doj moom muy xolub ku texee xam nga ne du ca dugg da cee dar rek wàcc waat nee kon loolu mooy xolub ku texee di ak xolub ku texe ci ma xolub ku texe moom ma bu ñëwee da cee mën a dugg dal ca waaye xolub ku texee di nag moom dafa mel ne aw doj nee na kooku ah, ndox ma bu ca dalee it day dal wàcc waat waaye du ca dugg sëriñ bi wax ne nangeen ngeen soxla woo li nga xam ne moo leen di gunge bu leen di nem ci bàmmeel te it moo leen fay wettali te neena loolu mooy jëf ju baax mooy jëf ju baax waaw dox jëm ci imaan dox jëm ci islam dem dox jëm ci ihsan te néna na loolu mooy yi nga xamné ñoy ñooy wa néna nee na loolu na ngeen ci góorgóorlu ndax ñoo leen di wéttali bu leen démé fa nga xamné du leen fa ñoo leen di gungé te it ñoo leen di wéttali gëm yalla iman bobu ndax daf na la iman ak Islam ak ihsan. néna ñoy ñooy néna iman moy ngeen baña bokalé ak yalla dara islam mooy nga bañ a bàyyi dara loo xam ne mën nga ko ci li sunu borom subhanahu wa taala digle ak di jéem a rafetal euh, nee na ihsaan it mooy nga bañ a geestu jëm ci mbindeef yi waaw mbindeef fi buñ defee yow na nga def buñ deful yow na nga def waaw donte ne yow dong yaay nekk ca liggéey ba di def yow moom na nga def kon ñett yooyu noonu la ko firee iman mooy nga bañ a bokkaale yàlla ak dara islam mooy nga def lépp loo man ci li yàlla digle ihsan nag mooy nga bañ a bàyyi xel nit ñi nit ñi buñ jëfee yow jifal buñ jëful yow jëfal <coughs> sëriñ bi continue wax ne <coughs> mépp mbir moo xam ne mbirum àddina la bu dee nekkut loo xam ne nit ki mën na caa jaare am alaxira nee kon loola neen la bu dee nekkul loo mën a jottalikoo pour am alaaxira nee na loola kon neen dong la <coughs> mépp mbir moo xam ne mbirum àddina la bu dee mënoo caa jaare ba am alaaxira nee na kon loola neen la nee na képp koo xam ne dangaa takkook mbiri ndigali yàlla yi ajjana takkook yow mooy ajjana ja nga xam ne moom la suñu boroom dikk way ragal yàlla ya képp koo xam ne danga bàyyi tere yàlla yi sunu borom subhanahu wa taala téyel la sawara wa nga xam ne ah nit ak doj ñooy koy xàmbu kon ku takkook ndigal yàlla yi takkook àjjana ku bàyyi euh, tere yàlla yi sawara bàyyi la mu ne ndigal yàlla yi ñooy caabi àjjana yi tere yàlla yi ñooy caabi sawara yi bi di wax ne lépp loo xam ne lee li liy yeggale ca yàlla nee na loolu bunt la la nga xam ne day yeggale ci leneen lu may yàlla nee na loolu kiiraay la nee na àddina dummoo yu na wone gannaaw te kenn kenn kenn mënu koo jot nee na alaaxira ngi ñëw dëgmal si na te kenn kenn kenn mënu caa mucc faw rekk nga taseek moom kon àddina dëddu na kenn mënu caa jot alaaxira dëgmal si na kenn mënu caa mucc waaye nee na loolu nag li ëpp ci nit ñi xamuñ ko wala kenn akthara naasi laa yaalamoon nee na yoon yi nga xam ne ñoo yeggale ca yàlla dañoo bëree bëree bëree ba toll ne limu noyyi nit ñi nit ñi niñ bëree seen noy yi ni mu bëree nee yoon yi yeggale ca yàlla ñoo ëpp wala toll nañ ne noy yi yi yi nit ñiy noyyi loolu kenn xamul nu mu toll waaye nee na nag ba ca gën a gaaw ba ca gën a jege yàlla nee na mooy teggin yu ñu gërëm nee na tasawuf lépp teggin la yàlla ku sell la la nekk fa moom it lu laab la nee na képp koo xam ne danga bëgg a jël dara ca la nekk fa yàlla kooku faaw dangay ngay laab ci li nga xam ne mooy sobey ak li nga xam ne mooy tër yi muy tilim tilim yi te mooy lu xaraam ak lu ñu sib ak sobe ak neen ak tër neena bokk na ci màndarga mi mi mi wane texe màndargam texe bëgg ak dëgg xubbul xaq ak nangu ak dëgg ak sàkku ak dëgg ak taqoo ak dëgg ak yéene aw yiw ak wax aw yiw ak def aw yiw ak taqoo ak yiw nee loolu bokk na ci màndargam texe bëgg ak dëgg di wax dëgg di sàkku dëgg di taqoog dëgg yéene aw yiw di wax aw yiw di def aw yiw te taqoog aw yiw euh, nee na it na ngay sax ci tuub sell ci bis bu ne waaw bis bu ne na ngay tuub tuub gu sell di yéene yéene joo xam ne yéene ju sell la nee bu dee ne dangaa toroxlu danga tuufu danga am ak ko ñu waxe tuufu moy am nangam neena na bu dee da toroxlu sunu borom subhanahu wa taala dana la yëkkati bu dee da ngaa sa bop bu dee da sunu borom subhanahu wa taala dana la defal ak jëriñu neena na képp koo xam dafa toroxlu yalla sunu borom subhanahu wa taala yëkkati ko te na barke kenn mënu koo am ci lu may barkeelu kon barke ñeen na way barkeelu ya ndax dañuy wax ne waman tawaadaa lillaahi tabaraka wa taala rafaahu ku suufeel sa bopp te yàlla rekk tax maanaa ku toroxlul yàlla sunu borom yëkkati la ñuy wax ne it laa tanaalul barakatu illaa bi tabarruki barke mënee su ko am ci lu may barkeelu ci lu may barkeelu muta ñu wax ne barakatu lil muta nee na barke ñeel na ñi nga xamne ñoy ñooy barkeelu bi di wax ba tay ne sunu borom subhanahu wa taala bi mu binde ruyi dafa waxante ak ñoom ne alastu bi rabbikum kan mooy seen boroom ndax du man maay seen boroom ruu yépp daan ne ko bala en ah kay yow kay yaay sunu boroom nangul ko loole sëriñ bi wax ne am na ñoo xam ne dañ ne bala en ah kay ci ak coobarewu am ñoo xam ne dañ ne bala en ah kay waaye nag ci ak forcé maanaam neexu leen ñooña nag ñooy ñi nga xam ne bi ñëwee àddina dañoo wàcc seen gëm googe ñu waxoon balaa ankay moo tax mu ne alxuraan nee na fa minkum kaafiru wa minkum mu'min am na ci ñoo xam ne dañoo weddi am na ci ñoo xam ne dañoo gëm ña waxoon balaa ankay te nekkoon te dëggu woon ca ankay joojee ñooña dañoo continuer gëm waaye ña nga xam ne bañ naan balaa it ah ak forcé rek la woon ñooña ñoo wacc seen gëm ga mu ne nag bi nga xamee ne sunu borom subhanahu wa taala jël na ruu yi dugal leen ci yaram yi ah, ci la xikma bi nekkoon ci ah, ruu yi daal di dañ daal di dañ daal dem ndax tër yi ndax tilim tilim ya nekk ca yaram bu mooy biñ defee bàkkaar yi maanaam dafa jël ruu yi def ci yaram yi buñ defee bakkar nak mutir hikma day dal di dem buñ tuubé tuub go xamné tuub gu sel la hikma dal di ñëwaat kon kon bobu yit bok na ci dénkaan yi sëriñ bi sëriñ bi continue wax ne adina <clears throat> ñaar rek fi nek teggin ak barke teggin nak néna mo jitu barké barke ndax nee na barke du jóge mukk ci lu may teggin maanaam ci teggin la barke di juddoo kon àddina barke ak teggin moo fi nekk waaye nee na teggin moo jiitu barke ndax ci ay teggin ci ngay amee barke te nee na teggin ñaar la teggin yi nga xam ne dafa dox sa diggante ak sa borom te yooya mooy ngay jëfe ay ndigalam di bàyyi ay tereem te bu la defalee xewal it nga muñ nga nga sant ko bu la defalee maanaam bu la tegee musiba it nga muñ ko dégg nga ah, te it di muñ ay tereem yi nga xam daf la ko tere it nga muñ ko ak teggin yoo xam ne sa diggante la ak sa digganteeg nit ñi mooy jaam ñi te mooy lool te teggin yooyu mooy nga bañ leen a tooñ bañ a jël seen alal te mayuñ la ko soraxuñ la ko abaluñ la ko ah, loo leen laaj bañ jox la ko nag wala nga jënd ko ca ñoom moom ah loolu alhamdulilah sag moomeel la euh, nee na barke nag du barke mooy li nga xam ne du wàññi ko waaye day dolli ci jamono bu ne waaw jamono bu ne day dolli ko te mooy ndimbal li nga xam ne day dimbali ci jaamu yàlla moy ndimbalal jaamu yalla am ndimbal ci di top yalla ba tabbi aljana ja nga xamne ne waaye dal mu taxoon dig nañ ko gaay nga xamne ño ragal yalla kon ndénkaan bi non la tëddee da ne teggin mo nek ci aduna ak barke teggin nak ci la barke di juddo kon teggin mo jitu barke teggin nak dafa am ñaari façon teggin teggin yi nga xamne sa sa ak sa borom la ak teggin yi nga xamne sa sa ak say moroomi jaam yi lañ teggin sa ak sa borom moy nga jëfé ndigalal bay ay tereem santa xéewalam muñ ay balam muñ ay balam teggin yi nga xamné sa digënté la ak sa digënté nit ñi nga bañ leena togn baña sacc ci seen alal lo ca laaj bañ jox lako ko wala nga jënd ko ah lola lu baax la alhamdullilah amul ben problème waye nak <clears throat> bul jël seen alal ci lu may luñ la may walla luñ la loo jënd ba moom ko loolu la wax ci teggin nee na nag moom mooy li nga xam ne du wàññi ko waaye day yokk rek xasee am moom jamono bu ne day yokk te ndimbalal jaamu yàlla lay doon loo xam ne day taxaw yow ba àjjana sëriñ bi wax ne al insaanu qismaani nee nit ñi ñaar lañ nit ñi ñaar lañ ku baax akub kàccoor mooy ku bon nee ki baax boo mënee fexe ba mel ne moom na nga fexe ba mel ne moom waaw boo mënee fexe di def la muy def nanga ko def boo ko mënut na ko topp boo ko toppee loolee mu yor dana la ca jox ki nga xam ne nag ab kàccoor la boo ko gisee na nga xool sa bopp yow na nga wëlbatiku xool sa bopp kii ab kàccoor la ku bon la euh, waaw léegi gis naa ko léegi nee na na nga wëlbati say gët xool sa bopp yow boo xoolee sa bopp boo ci gisee ayib ju mel ne moom la muy def ba ba tax ñu tuddee ko kàccoor nee na nga tuub ko waaw nee na nga tuub ko tuub goo xam ne tuub gu sel la ndax alxuraan nee na wa fii anfusikum afala tubsiruun na ngeen di lëñbët seen bopp na ngeen di xool seen ayib bi bopp di lijjanti seen bopp nee na bu dee ayib joojee yi def ba tax mu tudd kàccoor xool nga ko gis nekkul ci yow na nga daw waaja fa firra minhu na ko daw loo man bul ko jege nee na loolu boo ko defee danga mucc moom it dana mucc ci yow maanaam da nga mucc ci moom mu mucc ci yaw ndénkaan boobu it bu am solo la nee na kon insaan li ñuy wax nit ñaar rekk la ku baax ak ku bon ku baax boo mënee fexe ba mel ne moom fexeel ba mel ne moom boo mënta fexe ba mel ne moom it nga topp ci gannaawam rek di ko roy ki nga xam ne kàccoor la nag moom boo ne koo jàkk wëlbatil sa bët nga xool sa bopp ayib ja nekk ca moom bu dee mi ngi ci yaw nga tuub ko ayib ja nekk ca yow bu dee nekkul ci <coughs> ayib ja nekk ca moom bu dee nekkul ci yow nga jéem a daw ko moom waaju waayet woon jooje loo man bu ko defee yow danga mucc ci moom moom it dana mucc ci yow sëriñ bi wax ne ñu ñu ngi ci xikma ba léegi xikmatu Cheikh al Xadim li ñuy wax lépp ku dem ci xikmatu Cheikh al danga ko ci fekk dañuy jaar ci wolof bi nag te jaaruñ ci araab bi a arab la ko def wala arab lañ ko def ay ndénkaan yu ñu dajale la waaye nag ci wolof bi lañuy jaar maanaam jaaruñ ci arab bi tey ndénk maanaam boo jëloon rek ndénkaan bi ñu ciy teg nii sëriñ bi dafa wax ne ci arab wa qad xaala aydan bi annaka ida aradta an tandama aw an la tandima fi l axirati fal tusbiti tawbata nasuh wa niyata saliha qaala allahu tabaraka wa taala ya ayuha alladina tuubu ila allahi tawbatan nasuha non lay continuer kon nga xamni ne arab la koy def bu defé ñun indi wolof bi euh, kon sëriñ bi wax ci ndéngaan mu ne bu da nga bëgg baña bañ bu alakhirah bu dé dal yow mal xiyaam bañ nga fa rëccu na nga saxo tuub na nga saxo tuub ku sel na nga saxo yit ju baax di yene lu baax waxon na la ci gannaaw lu lu deme nonu ci in wi waqul wafal wa lazim taslami moy na ngay yene lu bax di wax lu bax di def lu bax te di taqoog lu bax non la ko waxe won nit ci deug da ngay yene ak deug di wax deug di def deug di taqoog it ak deug neena kon ci ndénkaan bi ni na ngay saxal njub na ngay saxal euh, euh, tawbatu na muy tuub di saxal yene ju sel budé bëgg nga muccu ci réccuk yawmal xiyaam bu àllaaxira ndax yaa ayyuha alladina amanu tuubu ilallaahi tawbatan nasuha alquran moo ne yéen ay yéen ñi nga xam ne gëm ngeen na ngeen tuub dellu ci yàlla tuub goo xam ne tuub gu sell la neena na tuub gu sell nag mooy nga mel ne koo xam ne dafa jóg gi aw xal ci ñaari dëggoom waaw sa ñaari tànk yépp nga ne ca tegg aw xal wala nga fekk ñaari xal nga ne ca tegg sa ñaari tànk ya dégg nga loolu na ngay yëkkatiwaate nekkul ne ne maanaam ne ñokkit jóg bu doon da toog ne ne yëkkati say tànk ca saasa nee na tugg sell noonu la mel maanaa danga nga rëccu loo jëlee loo jële woon sa tànk yi di ko teg ca xal ya ba ba ngay dee doo ko jëlaat di ko teg ci xal te di ko tey te Euh, maanaam tuub dafa am ñetti dafa am ñetti sart sart bu njëkk ba mooy danga nga teggi sa tànk mooy da nga bàyyi la nga doon def bu ñaareel ba mooy danga nga ko ca tege woon bu ñetteel ba mooy da nga li fi yaa ngi dund moom duutoo ko jël mukk di ko ca teg te di ko tay xanaa ci njuumte kon tuub gu sell noonu la mel nee na ju sell nag mooy nga yéenee def lépp loo xam ne sunu borom subhanahu wa taala digal na la ko nga yéene koo def lépp loo xam ne sunu borom subhanahu wa taala tere na la ko it nga yéene koo bàyyi te bañ caa sàggan ndax alquran nee na wala takun min al xaafilin euh, foofu la ndéngaan boobu yam sëriñ bi dellu wax ne euh, xam-xam bu am njariñ Euh, nit ki mënu koo làq mënu koo am lu may ci ñeenti yii waaw ci ñeenti yii ci la nit ki mën a amee xam-xam bu am njariñ mooy gëm al islaam ihsaan wa dawaamu na iman mooy gëm yàlla islaam jëfe ndigal yi bàyyi tere yi ihsaan ak rafetal wa dawaamu alayha ak saxca ca ak saxca hmm. mu wax ne al insaanu bayna isnayni nit sunu borom daf ko bind ñaar siq ko mu denk ci diggante ñaar malaaka mu farloo farloo farloo farloo farlu ci lan la farlu ci bind ay jëfam ndax alquran nee na wa inna alaykum la xaafidin kiraman katibin kon malaaka mu farloo farlu ak kan cheytaanul mujtahid shaytané ju farlo farlo farlo. ci lan la farlo ci yaq ay jafa alquran nee inna inna shaytana lakum Adu, fattakhiduhu aduwa te wo huwa ghafilun baynahuma mu adama nak mi ngi nek ci digënd ñaar ñoñu ba paré saggan lool wa sàggane len lool malaka me dara dara dara dara du yitim lumay bind te da ca farlu lool lepp lo def ci lu bax ci lu bon dana ko bind seytaane sii moom mi ngi taxaw ak yow te dara dara du luy tem lu may loo def rek mu yàq ko waaw day def rek ay de moom daal malaaka mi moom bu mbind dara lu baax loolu rek mooy yitteem yow na nga nekk ci diggante ñaar ñooñu ba pare ne leen ëpp naa def dénkaan boobu it foofu la yam sëñ bi ngay wax ne doomu aadama bu dee tooñut boroomam sunu borom du ko mbugal mukk bu dee tooñut moroomam a ah, loolu it du ko lor mukk mukk mooy moroomam loomu du ko lor mukk nee na képp koo xam ne danga tooñ sunu borom subhaanahu wa taala nee na fala yujisihi du ko doy illaa ma amila dara du ko doy lu may loolee mu def manana du ko fay mana manana du ko fay lu way la mu def manana bu da nga togn yalla sunu borom subhanahu wa taala lolé nga def muy togn googee lay jël keppat ci sa kaw mu nek lor ku togn jaamu yalla yi nak sunu borom subhanahu wa taala def la ngay ku doyadi ku xeebu ko xam du am kàttan ci dara ndax alquran nee na wa xuliqal insaanu daifa koo xam ne nag moroomam daf ko tooñ na muñ ndax alquran nee na wa huwa alqaahiru fawqa ibaadi ñu baamuwaat ko maanaam sëriñ bi dafa wax ne doomu aadama bu dee tooñul boroomam sunu boroom du ko mbugal mukk doomu aadama bu dee tooñut moroomam moroomam moomee du ko lor mukk ku tooñ yàlla nag sunu boroom fay la tooñ googee ku tooñ jaam ñi it sunu borom néewal la kàttan képp koo xam ni nag moom dañ laa tooñ nee na na nga muñ ndax wa huwa alqaahiru fawqa sunu borom mu ëpp doole ñëpp te ci tooñ ko lañ dëkk te taful mu jëfandikoo kàttanam googee ci sunu kaw sëriñ bi continué wax ne doomu aadama ñett lañ ku gëm dëgg ku weddi dëgg ak ko neex koo xam ne moom gëmut weddiwut mooy naafiq doomu aadama ñett yooyu rek lañ koo xam ne gëm na ba pare dëgg ca gëm ga ak koo xam ne gëmul te leer na ne gëmut moom na ca ak koo xam moom kenn xamut lu mu loolu mooy naafiq dëgg ki xam ne gëm na te dëggu ca gëm ga mooy la alquran naan alladina yuminuuna bil bi ba ca am lam tunsiruhum laa yuminuun gaa yi nga xam ne gëm nañ kumpa di taxawal julli di joxe ci seen alal nee na ñooñu mooy mooy ba ba wayu ma rasaqnaahu yunfiqoon mooy loolu loolu mooy almumin ki gëm ñi nga xam ne dañoo weddi te mu leer ñooñu moom alquran lam ca waxoon mooy sawaun sawaawun alayhim a anzartahum am lam tunzirhum nga nekk fi di yadda yedd ak ak nga bañ len a ka war ñoyam kep duñ gëm dedet ñoñu weddi nañ te leer na a ñi nga xamne ni nak moy nafiq moy ñi nga xamne mom seeni leerut moy wa ma yaqulu amanna moy ñi nga xamne dañ nan gëm nañ yalla gëm nañ bis ci way nak gëmuñ loolu moy nafiq ñoom ñett ñooñu ñëpp muy ki gëm dëgg ak ki weddi dëgg ak naafiq bi nga xam ne moom féetuwut penku féetuwut soowu ñoom ñëpp nee na suñ borom dafa waxante ñoom ci yaa ayyuhan naasu budu rabbakum nee na yéen nit ñëpp lam leen digal mooy jaamu yàlla wax bud rabbaka hatta yaatiyaka al yaqin nee na na ngay jaamu yàlla ba dee dikkal la laa ilaha illa ana fa'buduni nee na amul benn buur bu may yàlla yalla mo wax lolu amul benn bur bu may man na ngeen ma jaamu amara allah ta'budu illa iyyah neena sunu borom digle na ngeen baña jaamu ku may moom uxbudullaha rabbi wa rabbakum neena na ngeen jaamu sama borom mi nga xamne moy sama borom moy seen borom dénkaan bobu yit non la tëddee xamne aya ne ñëk yi ci suratul baqara rek la firi waaw ci diggante ki gëm ak yéfer bi ak nafiq bi waaw ki gëm dëgg moo moom aaya bu njëkk bi allazina yuminuuna bil xaybi wa yuqimuuna salaata wa mimma razaqnaahum yunfiquun kaafir bi nga xam dafa weddi moom mu leer inna allazina kafaru sawaawun alayhim a anzartahum am lam tunzirhum laa yuminuun naafiq bi wa min annaasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil axir wa maa hum bi muminin waaye ñoom ñëpp nag la alquran boole ne leen yaa ayyuhan naasu yéen nit ñi nit ñi moom ñett ñett ñooñu ñëpp ngi ci on bu doo rabbakum Eh, sering bi wax ne al muslimu bayna sijnayni neena ab julit mi ngi nek ci digënté ñaari kasso kasob sharia ak kasob haqiqa kasso sharia mo lay tecc ba do def ñaawte fi mana bakari sharia mo lay teunk ba doo def bàkkaar yi bàkkaar yi nga xam dafa feeñ nga xam da koy def sa cër nii mu feeñ comme lu mel ne sàcc ak yu demee noonu sa jëw ak fen ak yooyu xam ne daf feeñ loolu sariya moo cee tënk xam ne boo ko defee rek yar bi dal ci sa kaw xaqiqa nag nee na mooy kaso bi nga xam ne moo lay tëj ci mooy yàlla yi nga xam ne dafa biiru lu mel ne kañaan lu mel ne rëy yu deme noonu Euh, nee na ndénkaan bi dafa mel ne wuute sorewut ak bee ñu njëkkoon a wax nit ñi ñett lañ ku gëm dëgg te mooy ki xam ne du bàyyi waajib lu war du bàyyi lu ñu sopp kooku mooy ki gëm dëgg ku ñaareel ki mooy ab yéefar dëgg nee mooy ki xam ne du bàyyi lu haram du bàyyi lu ñu sib ak ki xam ne naafeq la te mooy ki xam ne day topp di mooy day def ne la yéefar bay def bi def li jullit biy def mu ne ab jullit moom atteem mooy àjjana àjjana la jëm ab yéefar atteem mooy sawara sawara la jëm kooku leer na naafeq nag buñ ko ràmmoo mu tàbbi àjjana buñ ko ràmmuwut mu tàbbi sawara Mm-hmm. kon dénkaan boobu it noonu la të tëddee waaw nit ñi ñett lañ kii gëm dëgg ak ki weddi dëgg ak naafeq ki gëm mooy ki nga xam ne du bàyyi lu war du bàyyi luñ sopp ki nga xam ne bi yéefar la mooy loo koo xam ne du bàyyi lu araam du bàyyi luñ sib naafeq nag moom mooy ki nga xam ne <coughs> day def waajib di def mandu di def xaraam di def makru nee na ab jullit nag moom teeruwaayam mooy àjjana ab yéefar teeruwaayam mooy sawara naafiq bu amul tawfiq maanaam bu amul buñ ko rëmmul rek teeruwaayam it mooy sawara buñ ko ràmmoo nag mu dugg àjjana dafa wax ne wa amal munaafiqu fa in sufia daxalal janna wa illaa fala sëriñ bi wax ne wa kullu man ajraahu shaxsun min amal daa mel ne nag bu defoon wa kulluma naa lay gën a kii ci mbind mi la fa sa yara jazauhu yawmal wajal lépp loo xam ne nit ki def na ko ci jëf nee na fayu jëf googee bu yemal xayaamee dana ko gis jëf ja lu baax la bu yemal xayaamee dana ko gis bu jëf ja bu dee lu la bu yemal xayaamee dana ko gis fa kullu ma ajraahu shaxsun min amal fasayara jazaa'uhu yawmal wajal mu firee ko ne sunu borom subhaanahu wa taala moo wax ne fa may yaamal misqaala darratin xayra yara ku def lu tuuti tuuti ci aw yiw dana ko gis wa may yaamal misqaala darratin charra yara ku def lu yées lu bon lu tuuti tuuti dana ko gis sëriñ bi dellu wax ne fa kullu ma qaddamahu l insaanu falil jasa yu ji uhu dayyaanu lépp loo xam ne doomu aadama def na ko mu jiital ko moo xam aw yiw la moo xam aw ab safaan la nee na sunu borom mi nga xam ne mooy ab fayekat dana ko ko fay ndax alquran moo ne wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allahi lépp loo xam ne jiital ngeen ko ñeel seen bopp ci aw yiw neena da ngeen ko fekk fa yalla te neena ma hindakum yanfadu wa ma hindallahi baq neena la nek fi yeen doomu adama yi day jeex waye nak yalla mom la nek fa mom du jeex mukk te lepp lu len jital ci aw yiw kon da ngeen ko fekk ci yalla te yalla la nek fa yalla mom du jeex mukk ndax neena sunu borom subhanahu wa taala mo ne mooy maaliki yawmid diini mhm. kon denkan bobu it non la تدي مانا أنا واخ بيت وي بيت داي داي داي أنا داي فيك اي القران مو ديف كو بيت بو خوله فما يعمل مثقال ذره خيرا يرى اك وما يعمل مثقال ذره شر يرى موم لا فيرينه وكل ما اجراه شخص من عمل اها فسيرى جزاؤه يوم الوجر بيت لول فيري وما تقدموا لانفسكم لول لا فيرينه فكل ما قدمه الانسان falil jasa yuji uhu dayya ah. kon yakarna man nañu taxaw fofu mu gën baña gëna gën a eh, ba banen yon inshallah ndax ki bi mom gudd eh, beuri na trop parce que yu doon ki bi man na man na 50 pass waaw ñu taxaw ci fofu rek ba banen yon inshallah di ñaan suñu borom subhanahu wa taala lépp lu ci mom la ñing ko koy gërëmee lepp lo xam Euh, dëng na ci it ci ñi ko doon jéem a leeral la ñu ngi koy jégalu bu baax baax di ñaan sunu borom mu defal ñu ci tawféexal sëriñ bi euh, faj aajo yëpp barke Sëriñ Tuubaa wasalaamaaleykum wa wa barakaatu